complètement effectivement effectivement alors ci noonu nag li ñuy daal di jàll rek société moo ñu ñor on retrouve tout de suite Nana Aïdara dans la rubrique société. li nga xamante ne mooy muur muur seet pour mu dugg ci biir néegu sëy <laughs> asma tey exceptionnellement dinañ waxtaanee muur d'habitude aada ak cosaan euh, les samedi lay ñëw mais tey nag dama ko indiwaat juste pour ñu waxtaanee li nga xam ne mooy muur importance su muur seet ci biir sëy nañ dem seetaanee reportage bi te daan ñëwaat ci plateau bi. ndax muur dafa nekk benn symbole boo xam ne ci sëy képp kuy sëy. yaa ci ñu muur la aw xas lay doon ci yow. nga jóg rek jël say bagage dem sëy. te jaaroo ci ñu muur la xas lay doon ëllëg ci yow boo fa fekkee goro fekk fa wujju peccoor go fekk fa euh, njëkke bu heure boo xulooweek ñoom liñ lay njëkk a xase mooy jéeg bi sëy si te kenn muuru la faw ñu xase la ko dana la ko dàqee euh, muus dana la ko dàqee muur li tax mu am importance ci sëy li mu ëmb dafa bari ndax muur ci lañ la mën a defal gàllaaju cosaan gàllaaju néegu sëy dafa am gàllaaju cosaan côté ndey côté baay dafa am te loolu lépp ñu ngi ko mën a defalee jigéen ji war a sëy ci biir bés bi si bés biñ koy muur muy sëy ci lañ ko mën a defalee lool aaday muur nag dafa bëri te bokkut olof am na nu muy muure làkkkat bi am na nu muy muure xeet woo gis ci àdduna am na nu muy muure nu bokkut ak na beneen xeet moroomu xeetam di muure muur dafa am importance li tax ñuy muur jigéen muy sëyi aada la ak cosaan gàllaaj dana ca génn lu lay aar gannaaw yàlla dana ca génn luy baaxal sa sëy di la ca dëj dana ca génn doom ju baaxit macha boo ko amee na na muy na koy boote dana ca génn sër boobu ñu lay muure danga koy denc du looy lal si darab du looy woddoo du looy sàggane damay ubbi sa armoire wala sa waxande dugal ko ca saa yoo jàqee ba jaaxle jàpp julli ñaari ràkk muuroo ko kàbbar ñaan sunu borom sër biñ la muuree dafa am important bés bu sa doom juddoo sa premier doom ñu koy wax taaw moom lan koy laxase ñu de si sunu aada dina natte say loxo ci dugub mboq ak ceeb di ko natte biir natte ko biti danañ la tojal nen danañ la takkal caq danañ la takkal fer danañ la jox kook ak leket danañ natt sa tànk ñun ci sunu aada dugub bi ci mooy lekk doo ko manqué ba àddunay tukki mboq beeg dugub bi mooy doom ak ceeb bi doom manqué looy lekk kër gi ngay sëy du manqué njël mukk mukk mukk ba àddunay tukki loolu la loolu la wundu loolu mooy signification bi waaw fer nag ak caqa ya wundu na it nga sëy ci jàmm ak salaam dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wundu na it dal sa kaw du yomb play and the mic la ñuy daaji rek bàyyi la nga gën a développé maire bi euh, xaw nañoo wax li nga xamante ni mooy importance su muur euh, ci seet ak ngëneelam. asma muur dafa am importance lool ci néegu sëy tey jii jigéen buy sëy da ngay ñaan yàlla ñu muur la. mu dafa bokk ci suñu aada bokk ci suñu cosaan euh, am na sax ñuy wax ne ba lislaam ñëwee dafa xool aada yi nga xam ne dérangé wul yàqul dara ci diine bi mu wàcc ko fi muur ci la bokkoo tey jii nii boo jëlee importance su muur bokk na ci gàllaaj la ci sëy en première beneen bi mooy euh, euh, gàllaaj la aussi ci doom bi nga xam ne moom ngay njëkk a am jigéen boo xam ne dañ ko muur parce que sër bi ñu lay muuree moom la ñuy jël te euh, laxasee ko sa doom bés boo amee sa taaw bokk na ci ci ci muur aussi li nga xam ne ni maam yi dañ ko fee bàyyi mu nekk loo xam ne dañuy wax ne c'est c'est presque obligatoire ndax jigéen lu mu sëy même bu nekkee dix ans quinze ans sax après par force dañ lay muur pour wan la ni importance su muur tey boo boo demee sëy te muuruñu la bos boo amee doom dañuy dem ngénte la sa kër yaay duñ la ñu ngéntee sa kër sa kër jëkkër sa kër yaay lañ lay ngéntee après buy boo guddi gi nga ñu muur la am na ñoo xam ne duñ la muuraat dañ mun nga demaat ñibbi euh, ñibbiwaat ak sa kër ak sa sa doom ba keroog ngay am jot pour ñu muur la muur nag lépp luñ ci def rek am na signification boo jëlee par exemple dugub bi nga xam ne moom lañ lay sotti dugub bi daf lay wan ne ni euh, doo mës a ñàkk lekk ci sa biir néegu sëy euh, boo jëlee fer yi fer yi daf lay wan ak càkk yi daf lay day signifier ni si sa biir néegu sëy fi nga xam ne ne mooy ci kaw lal bi wala sa sa intimité ak sa jëkkër mag yi dañuy faral di wax ne ni côté boobu noonu doo am sa jëkkër du mës a am déception ci yow boo jëlee nen bi nga xam ne ne moom lañ lay faral di tojal nen bi dafay wan ne ni ala kulli aal kenn du la mënal dara muy côté mystique ak leneen ak leneen ay cat ak laamin ak loolu noonu loolu lay waral ñu lay tojal nen muur nag du ne